bon euh, j'ai vu man recevoir naa damay damay recevoir ay message de culture bi nag mm-hmm. dugal nañ ma ci biir gis naa mm-hmm. mais j'avoue que j'ai pas réagi parce que aussi man si sama bopp je peux pas trop m'aventurer parce que j'ai beaucoup donné de mon temps ci ay mm-hmm. organisation prochaine parce que dafa bokk ci sama liggéey. parce que je suis membre fondateur de l'ANS. ANS kañ la 99 novembre 99 ma gàddu yore sama sagaru oto ñuy wut di wuti récépissé et cetera on a travaillé j'étais vice-président de l'AMS en 2012 quand on, euh, quand le ministère a récupéré le président de l'AMS moi je suis devenu président de l'AMS 2000 après man sama vocation c'était quoi nañ jël booy former leen ñun ñu pousse parce qu'on n'a plus le temps on a fait 16 ans ici les gosses il faut comme pour que mouvement am doole noonu la quitté AMS on est parti créer SAIU c'était pour yëkkatiwaat mais en certain moment je me sur moi-même musique bi nag ça existe dirigé par pardon culture bi nag kon xam naa musique bi nag léegi mu ñëw <laughs> maa ngi ñëw de kon musique bi nag <laughs> culture bi nag c'est Baba indi ak bon euh, euh, ça a été créé mhm. je pense qu'il faut toujours créer mhm. parce que ku nekk comme je l'ai dit tout à l'heure sànq ku nekk mën nga demal sa bopp. mais xam nga lan moo ëpp doole. mooy que les gens ñëpp ñëpp laa wax. culture nag dafa am AMS am say bi am keneen am euh, AIM et cetera cest à li ëpp solo mooy que tey les gens rassemblent ci benn plateforme su amul. c'est-à-dire que ñooy toutes ces organisations là seen liggéey du représenter tous. su amul seen liggéey ça vaut zéro. man que ça ça je dis est-ce que man je suis sur les réflexions je suis très avancé sur ça. ok je suis ai déjà contacté avec plein de gens. c'est-à-dire que man je le répète su loolu amul xam naa ñu nañ ma dégg ma wax ku ci nekk sa liggéey ça c'est nul. je pèse mes mots. parce que dama ci am expérience dama ci euh, xam nu ñu koy wax ci en wolof dama ci kii. dem ci dem ci activé wu. Mm-hmm. ba pare xam xam xam pour pourquoi ma koy wax. ñu toog association bu nekk naan da ngay demal sa bopp. c'est pas possible actuellement ce que vivent les musiciens seule une orga une organisation boo xam ne. Mm-hmm. c'est commune. mooy ci mën na génne. c'est l'union qui fait la force ku nekk bu bëggee demal sa bopp c'est-à-dire je trouve ça même injuste. je trouve ça injuste parce que waaw ouais, que première chose les premières choses à faire la première chose à faire pour toutes les associations qui sont là qui parlent de culture qui parlent de musique la première chose il faut savoir renouveler les instances il faut savoir renouveler les instances permettre à qui que soit qui de droit mu dugg ci biir ndax mu am di cent neuf mhm. actuellement ce qui se passe au Sénégal je me dis c'est même inacceptable que ñun donneur de leçons artiste donneur de leçons qu'on arrive à ça c'est-à-dire qu'on est incapable de faire respecter nos droits on est incapable de faire fonctionner nos instances que ce soit professionnelle que ce soit associative ku munul bàyyi gi keneen ñëw mais la réalité mooy que tey suñu waaw di regretté wu neef c'est valable pour tout le monde nañ ma kii nag je leur parle comme ça c'est des frères c'est des sœurs mm-hmm. ni langage bi la mën a laa leen mën a tenir mm-hmm. il est temps pour que la situation change képp ku jël poste ci benn association sache que tu es responsable ku mënul na bàyyi keneen ñëw nañu révérence ñu liggéey